أعوذ بالله شميع عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تتم صالحاتي والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ginnaaw ban sant borom subhanahu wa taala di julli ci sang-sang mi Seydina Muhammad alayhi salaatu wasalaam saa su ñu koy defee seen El Vision Médias ba léegi ñu ngi fii Tiwaawoon ci dëkk sunu maam Sidi Hadji Malick radiyallahu taala an du waajal mawlud 2018 mi nga xamante ni sunu maam Seydi Hadji Malick radiyallahu taala moo ko wooteel kan kan la ko wooteel mi gën gi min def alayhi euh, euh, gam am ci Seydina Mouhamed ak euh, bëgg gi nga ko bëgg moo tax wooteelu boppam mais dafa wooteel ki nga xamante ni mooy Seydina Mouhamed alayhi salaatu wasalaam ko oustaz ni ñu ko waxee woon tey suba rek ba léegi ci terrain bi bàyyiwuñu waaye tamit dañoo ñëw tey ci benn dal dal boo xamante ni xule xule yi lañu waaye fekk leen ñu nekk ay taalibe Serigne Babacar Sy radiallahu taala an di wane seen cofeel seen ngëm ci sa tarixa Cheikh Tidiane Sy radiallahu taala ñoom lañ fas yéene waxtaan rek waaye dañuy waxtaan ak kenn ci nga xamante ni euh, doom la ci euh, ni mooy xule xule yi muy petit petit la ñu fas yéene waxtaan léegi-léegi incha allah rabbi su koy bàll ba ma toppee rek ñu dee waxtaan ak petit euh, nan la def ba amaat dal bi pour xale yi kase incha allah ay ayca ba léegi comme ni ma nekk waxee woon sànq rek ñu ngi fii Tiwaawan ci dëkk Seydi Hadji Malick radiallahu taala waaye tamit ñëw benn dal bi nga mooy xulle xulle yi annoncé woon naa leen sàkk ne petit xulle waaye tuddul petit xulle Mouhamadou xulle la tudd waaw ndax petit bi surnom la moom mooy turandoo ki nga xamante mooy gën gi min def alayhi salaatu wasalaam ki nga xamante ne su maam Seydi Hadji Malick moo ko wooteel muy guddi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu fas yéene waxtaan moom parce que moom dafa organiser dalu boppam bàyyi kër papam ñëw fii organiser fi dalu boppam waaw salaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp euh, tout les tous les téléspectateurs et téléspectatrices de El Média mm-hmm. di leen sant leen gërëm mm-hmm. waaw di sant ñëpp di ñaan yàlla gàmm gi ñu dugg mm-hmm. euh, yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rabbil alamin génne ci alhamdulillahi rabbil alamin mm. euh, Mamadou dama gis nga jóge sa kër papa ñëw fii Euh, créé fi sa dalu bopp tuddee ko waa VIP Serigne Babacar Sy mhm. nga invité nga xam ne ñoo nekk sa morom yeeg sa xarit yeeg sa àndandoo yeeg ñëpp la moo tax nga def loolu. waaw avant tout. Mhm. dal bi comme ni ma ko waxee toujours rek nekkul dal boo xam ne man maa ko moom. Mhm. ñun ñuy tax ñun ñëpp ñoo créé. tey kii mooy Adama Fall moom moo tuddee waa VIP sopp sëñ Babacar. t-shirt yi nii yëpp moom moo ko defar. kon mën naa ni peut-être man maa ne ci kanam rek mais sama ginnaaw ñoom ñoo ma dooleel te comme ni ma ko waxee toujours rek. man ben référence rek la muy sam pap li yépp ci mom lañ ko gisee comprendre nga yag nañu ñëw gam biñ nekkee xalé ba tay mosu ñu war a gàmm chaque année dañuy ñëw té gis nañ gàmm ni muy démé ni mu ci sonné comprendre nga gan ñëw xam nga mu téral leen comprendre nga léegi man je me suis dit pourquoi pas man tamit ma jéem a xam naa ne mënuma sax mais ma jéem def comme mom ma jéem def comme mom peut-être que bon ay jeunes lañ mën naa ay jeunes lañ ñi ñii rek mais pour man ñun tamit ñun ñëpp ay responsable lañ war nañoo mën a def comme moom comprendre nga moom mu ci jàpp bu baax a baax li li ñun mënuñu ko moom moo ci dugal loxoom bu baax a baax a baax di ko ñaanal waaw yàlla may ko gudd fan wér gu yaram waaw yàlla na daal yàlla na fekke suñu njëriñ te tamit lii tam ñuy def nii ça fait quatre ans ñu koy organiser ça fait quatre ans je me rappelle bi ñuy démarrer kër gu mag lañ daan jëlee añ di ko indi fii nii. xam nga au fil du temps xam nga ñu commencé xam nga di créer suñu bopp di defar xam nga ba mu def ba mu indi lii nii tey kon dañuy sant yàlla rek di ñaan lii yàlla na jëm kanam te ku fi ñëw ren tamit aajo boo fi ñaan waaw yàlla ko yàlla faj ndax Seydi Hadji Malick moo wax loolu nii ñoo leen ñu màggal Seydina Mouhamed waxul ni ñoo leen ngeen màggal ma dafa ni ñoo leen ñu màggal Seydina Mouhamed man tamit man ni samay xarit ñoo leen tamit ngeen ngeen ànd ak man ñu màggal Seydina Mouhamed kon yaakaar naan fii tey ku fi ñëw rek ngir borom bés bi lépp loo fi mënta ñaan pour man mu deggu ci yow yalla dina lako defal te man gis na ci man rendement xamna ci dara waaw dama gis nga nek xalé euh, waye tamit nek xalé boo xam ko am pas-pas nga ci tarixa Chama Tidiane bi nga nek sa papa yar la ci yow te bu la neex nga dem seti lenen petit lolou nako dundé waaw comme ni ma ko waxé rek man ben référence la moy sama papa suné wi mani wi suné non ma non su ne non ma ni non dama juddou fekk mu nek ci yane sama yaay nekk tiijaan ñu yar ma ci tarixa bi comprendre nga man dama bokk fii nii man fii laa bokk mën naa ni man fii man sama kër la xam naa ni waaw comme ni ko waxee rek man dama nekk Tidiane rek ba ba may dee <laughs> waaw direct Tidiane mooy daw sama yaram direct Tidiane mooy daw sama yaram kon man su ma dikk mënu ma lekk mënu ma nekk leneen loolu Tidiane may taal bi sëñ Babacar nag uh-huh. may taal bi sëñ Babacar waaw muy sama soppe waa El Vision Média El Vision Média comme amuñu seen fay uh-huh. fu ñu dem dañu fay fekk uh-huh. ñun mënuñu leen a fay couverture bi nii yéen xam ngeen ni muy demee mhm. mais gis ngeen dañ ma bett sax mhm. dama xëy le matin rek yeewu gis leen mhm. xam moon ni sax dañu fiy ñëw mais lii sax la quoi di leen ñaanal tamit lii yàlla na yokk ngeen dem ba am ay télé ay télé ay tele parce que sama mariage xam nga ñoo fa ñëwoon tamit comprendre nga famille bi lu xew ñoom dañuy ñëw kon di leen ñaan di élage xam nga di ko ñaanal ak ñi ne ci ginnaawam ñëpp waaw yàlla defal leen jàmm yàlla jubóole kook ñi muy liggéeyal waaw ba lépp rek yàlla defal la ko man tamit may gërëm ñi jàpp ci gàmm gi yëpp ñëpp maa ngi leen di gërëm mënu ma lim kenn ñoom ñëpp ñoo ci jàpp billaahi barke Seydina Muhammad man defuma dara ñoom lépp ñoom la man mënuma dara lépp gars yi ñoo ci jàpp ñoom ñi ñëpp ñi nga gis fii nii ñëpp dañ cee jàpp di leen ñaanal lu ñu mën ren déwén yàlla nañu mën lu ko ëpp vraiment kontaan nañ tey bon yàlla borom bés bi yàlla na leen fay ndax bés bi tey loo ci def benn rek borom bés bi dala waaw dina la fay lépp loolu kon yaakaar naa secret boobu ñoom xam nañ ko moo tax lépp lu ñu def ñoom tamit dañ koy xeeb man tam lépp lu ma ci def rek waaw xeeb naa ko di leen ñaanal bu baax a baax jërëjëf. sëñ bi naa def. maa fi. naa la. maa lay nga. man xaritam la xaritam bu yàgg. dégg yaa koy defar. t waaw sama maa koy defar mën naa ne sax. waaw sama benn gaayan moo koy defar. def ngir àddee sëñ Babacar wala koo def di fayee ko dañ koy defar rek ku ci joxe sa dërëm ñu defaral la tamit bu ñu mënee defar tamit dañ lay defaral jox la. mu gisee initiative bu rafet bi Mamadou organisation fii nii. waaw dafa rafet rek nekkul rafet loo xam ne tey jii moom gisu ci benn yoon loo xam ne day arrière day gën a avancé rek te heure bu ñu defaree bu ñu defoon ren benn bu ñu déwén dañuy def ñaar bis topp dañuy defaat ñett mosuñu gisee arrière benn yoon day gën a avancé rek te ñu gisuñu si leen loo xam ne yow euh, loo xam ne tey jii day dellu ginnaaw te ñu siy sant yàlla. sëñ bi ziar naa la. waaw ñu ngi day delloo ziar. yaa ngi am jàmm. ñu ngi sant. ñu gisee daluwaay bi nga xam ne mu petit da ko Mamadou da ko organisé mu nekk daluwaay xale yi. dëgg la bisimilahi rahmaani rahim balaa loolu dama leen nuy nuyu waa El mhm. di leen jox seen wàccuwaay. Mhm. di leen ziar. Mhm. waaw dal bi ni ñu ko gisee fii nii boobu ba léegi ñeenti at ñu ngi koy def. mun ci benn arrière. sant yàlla petit xule ñu koy ñaanal. moom sama frère la waaye moom lu bëri man daf may jàppale kii dellu ginnaaw. amul tànk ginnaaw ñun ba ñuy dem ba ñuy doog a tàmbali. Mm-hmm. dañ doon jëlee añ waaye léegi ñu ngi teg ay mbana. sant yàlla lii yàlla na ko yàlla yokk. Mm-hmm. waaw mm-hmm. daal sama xol daal dafa sedd seet na ci moom ndax mën na di organiser leneen mais dafa ñëw ni baa ma jiitu ñun ay rakam ñu topp ci ñuy def lii chaque année di ñaan nag lii nii yàlla bu mu dagg yàlla nay gën di dem ñuy gën di avancer loolu laa koy ñaanal ay ñoom gaay yëpp ay ñoom aada ay ñoom shérif ñoom ñëpp loolu laa leen di ñaanal. billaahi. sëñ bi ziar naa la. dolli ziar sama si. lan ngay dollil Mamadou ci lii mu def nii. <coughs> waaw maa ngi nuyu ñëpp di leen seen tur seen sant di leen gërëm ci comme ni ko sama frère yi waxee rek waaw ñun Mamadou ñun amuñu fayam tey ku ñeme dañ laa téye parce que tey jii bu taxawalee lii nii ñu ñëw taxaw c'est parce que moom moo ñu may fit. kon donc dañuy xam ne lii duñ ci dellu gannaaw parce que ku doon jëli añ ba tax tey nga teg say mbana cela veut dire que yàlla du la seetaan te ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ku koy màggal yàlla màggal la moo tax ñu ngi koy ñaanal gudd fan yàlla bàyyi ko boppam ba yokk ko bala ñu yokk ñun ñëpp di gërëm waa El nag parce que lim mu ci wax dafa rafet déjà sunu famille sax lañ bokk ndax saa sunu ne lañ leen di gis fu ñu leen soxlaa gis leen waaw Aïcha mi ngi noonu lii laa la indiloo ci nga xamante ne nekk dalu xam dalu euh, Modou Khoule la mu organisé ko euh, mu euh, indi ko fii nga xamante ne moo nekk daluwaay xale yi VIP waa VIP Serigne Babacar Sy nekk fi mbokkam yeeg xaritam yeeg soppeem yeeg ànd jàmmeem ba léegi bàyyiwuñ ndax oustaz mi ci terrain bi moom tamit nekk ci beneen lieu fas yéene leen jox lépp loo xamante ni xew na fii ci ci dëkk suñu maam Seydi Hadji Malick radiyallahu taala anhu mu nekk waajtaay gudd yonent bi waaye tamit salaam waaye tam ba muy def burdu bu ko neexoo mu woot jël xilaas zahab burdoo ko parce que bind na lu nekk ci yonent bi waaye dafa jël bind imam Bouchayri ñëw barkeeloo ci parce que la imam Bouchayri wax ca bur ca bind ma moo tax loolu lañuy saa su ne nii rek lañuy def di leen indi lépp loo xamante ne xew na fii ci Tuubaa incha allah rabbi dañuy bàyyi oustaz léegi-léegi muy am lu mu ñu indi moom tamit lépp ñu barkeeloo ko ci gàmm gi incha allah waaxidu daawanaa ni alhamdulillahi rabbil alamin wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu